gars yi salaamaaleykum gars yi dama doon nelaw ñu yónnee ma ay vidéo yu bëri naan ma Nabou Daas yow la doon vaar di la yekk lu nekk ci internet bi nabu yaa ngi doog am coow ñaaw na na ñaaw ba pare bu dee preuve maa la ko dàq fi nga jaar maa la ko dàq li nga am ak njaw faal maa la ko dàq li tax ma la doon protéger maa la ko dàq li nga daan def lépp lay dox du ma saaga gars yi dama ne ticket lawbe papi suu rangu ku Nabou Daas masa tooñ wala mu masa saaga sa ndey bul waxati bàyyi leen maak coow lañ Nabou Daas fexeel ba ni nga ko continuer rek na mu yaa ñi doog a lekk coow sa àdduna man nga naan man maay ñaan ay valise man teew nga fekk ma sama plein live nit ñi di ma seetaan ñëpp di seetaan live bi nga ne damay maye ay valisu yére xaalis bi ma koy récupérer ci Ndiaw Fall naa wax li tax ma koy récupérer ak nan la demee wax Nabou Dash yow yaay kan Nabou am nga coow maa la gën a mën preuve man Sénégal kenn mënuma maa loo man lu ma wax Sénégal dëgg la duma ma fente dama koy teg fu leer Nabou yaa ngi doog a lekk coow gars yi xaar leen live bi ci kanam TikTok Général Capo Facebook Minuit Sénégal incha allahu rabbi ba ci kanam